di la ko nuyoo di la ko ziyaara waaye nag ànd ak mboolem soppe yi ànd ak mboolem waa daayira bi moo xam muy góor di jigéen walla muy mag ak ndaw walla muy xale ak di euh, xale walla mag moo xam muy góor walla jigéen ñoom ñëpp ñëw nañ ci nu ëpp nan daa ñëwee ci seenu kàttan seen yitte waaye tamit seenug doole seen lépp yaakaar naa yaa ñu gën a xam ñoom ni ñu ñëwee ñoom ñëpp nag nin ko daa defee rek lañ ko defee te mooy xam nañ ne sasoo ñu dara xam nañ ne tamit soo soo sa xool sax su la ko yàlla mayoon ci alal yaay jël di ñu jox waaye ñun duñ la jox waaye nag olof yi ñooy wax ne barke ñaar a koy joxe ñuqi walla ñaq ñaq nag mënuñ koo def ndax kenn ku ne soo xëyee yaa ngi dem sa palaas pour wuti loo dundalee sa njaboot waaye ñuqi nag moom ci benn bis bi donte nekkul si ñun dara war nañ koo jéem ba def ko at mu ne nag suñ ko defee ñu ngi gis ak yokkute moo xam kenn ku ne si ñun walla si daayira bi suñu àndee ñu ngi gis ne mi ngi yokk mi ngi yokk ci mbooloo waaye ñu ngi yokk ci pas-pas waaye tamit ñu ngi yokk ci yitte waaye tamit ñu ngi yokk ci man-man ànd ak nag li ñu andi ñu xeeb ko lool waaye tamit comme niñ ko daa andee rek lañ koy andee incha allah su ko defee daayira bi ànd ziyaare la sunu ziyaara mooy sunu barkeelu incha allah joxoon nañ la ko Cheikh Ndiaye ko defee incha allah mu joxal ñu ko sëñ bi incha allahu taala ci biir ziyaare bi nag. ab talibé amul lulul def yëfi talibé waye ab sëriñ wala borom xam-xam soko ko soko soko soo bëglo su fekké ne borom xam-xam bu pire la doo ko bégloo ci alal ndax alal dafay jeex doo ko bëglo ci ay kàddu ndax kàddu ga mën naa nekk ne lenen la waye dang koy bëglo ci xam-xam ñun nag ñi fi nekk ñi ci ëpp kon yaa leen jàngal alquran am ñoo xamante ni yaa leen jàngal xam-xam bëri nañ fi mel ne que xali lañ fi ku mel ne que Ibrahima Ndiaye ku mel ne que Baba Ngiraan ku mel ne que Mouhamadou Moustapha sa doom ku mel ne que Mouhamadou Mansour ñu bëree bëri ñoo xam ne ci daara ji la ñu nekkoon man tamit ci laa nekkoon ci daara ji ñu am comme que ziyaare mag ñi dañ daa baax suñ daa dem seeni sëriñ di yóbbaale seeni soxla soxla yooyu nag ñuy yóbbaale xamoon nan ne sëriñ biñ koy yóbbul amul kàttanu faj ko waaye dañuy wax ne barke la kenn munta gis ci bët waaye fum dugg fu ne ñu xàmmee ko barke booba nag lañuy ñaan ci mu topp ba faj suñu mbooleem soxla moo tax bi ni ñëw indaale nañ xasiida boo xam ne xasiida taalibe la xam naa dina bari ay juumte dina bari ay yàq-yàq waaye li ci xol bi man laa seet laa seetaloo yàlla te li ci xol bi yàlla na nekk loola nag suñ ko bindee sunu loxo la wala sunum xel waaye jàpp naa ne jëli naa ci xelu waa daayira bi kenn ku ne lennat loo soxla ci gàmm gi indi ko teg ko fi mooy loo xam ne sàkku nan nga ñaanal ñu si dañoo wax ñu waa daayira bi ne zurnaakumu yaa cheykhana maa jumlatal aw maa jumlatil ahbaabi wal awlaadi wa zawjaati zurnaakumu yaa cheykhana maa jumlatil ahbaabi wal awlaadi wa zawjaati جئناك شيخي مخلصين بلا ريا لله جئنا خافر الزلات جئنا لنيل رضا العزيز ومنه وكذا الوفاق وكثرة الثروات جئنا لنيل رضا العزيز ومنه وكذا الوفاق وكثرة الثروات رشدا وسترا مؤمنات صالحا تنتايعات لنا عن الآفات رشدا وسترا مؤمنات صالحا تنتايعات لنا عن الآفات رشدا وسترا مؤمنات صالحا تنتايعات لنا عن الآفات لا تنسى بابا رئيسنا والخل مخ تار ابن عم القرم في الرحمات لا تنسى يعني لا تنسى لا تنسى باب رئيسنا والخل مخ أو والخل مخ تار ابن عم القرم في الرحمات ندعو لرب خالق أشياءنا ندعو لرب خالق أشياءنا لوصيلتي منجي ذوي العاهات ندعو لرب خالق أشياءنا لوسيلتي منجي ذوي العاهات عمرا طويلا صحة الأبدان مع رزق حلال واسع الثمرات ندعو لرب خالق أشياءنا لوسيلتي منجي ذوي العاهات عمرا طويلا صحة الأبدان مع رزق حلال واسع الثمرات ثم الصلاة على الحبيب وآله ما جاء وفد طالب الدعوات سونو جوخي نديغال سي نياري مين رك نجيم فري دانيو واخ سي بيت بو يا شيخنا مع جمله الاحباب والاولاد والزوجات dama ne yow de sëriñ bi ñëw nañ di la ziyaara bin lay ziyaara nag ñëw na ñun dong ñëw nañu ànd ak soppe yi te mooy waa daayira bi tuddee daayira bi sopp sëñaal yu ñang waaye wal awlaadi doom yi tamit ñëw nañu waaw mursin ñëw na andi na doomam keneen ñëw na andi na mbayang mbayang mbayang wàdd ñëw na andi doomam ah sunu euh, yaay ñëw na andi doomam kon ñom ñëpp ëñ nañ seen doom waye wa zawjati ñëw nañ timit indi soxna yi man mi am soxna xam nga nekuma célibataire indi na sama soxna جئنا شيخي مخلصين بلا ريا لله جئنا خافر الزلات من ديكن ma سيرن بي دانيو ديك sëriñ bi dañoo dikk waaye ba ñuy dikk ñu ànd ak sellal gu wér kéng wallahi bila riya ngistal جارالي lillaahi ji naa dañoo dikk rek mayaani ji naa lillaahi dañoo jikk rek ngir yàlla yàlla mi nga xam ne xaafiri zallaati mooy jéggale mbooleem rëcc rëcc yi li tax nag ñu ñëw du pour jege la walla pour am ci àdduna wala pour ngistal waaye dañoo ñëw ji naa li nayli ridal azizi wa mën nihi dañoo ñëw pour am ngërmaan ak yàlla ak xéewalug yàlla loolu nag xam na ne amoo ko waaye barke bi fi nekk moo tax ñu wut ci ko wakadal wifaaqu bëgg nañ tamit dikk barke bi topp ñu ban jëlee fa ak dëppoo dëppoo ga nag itlaax la dëppoo suñu biir ñun daayira bi dëppoog suñuy soxna dëppoog suñu njaboot dëppoog suñu am di jàmm dëppoog bërëb ba ñuy liggéeyee waaye lu xéewal neex dëppoo am te poos yi dara nekku ci soo reppee du gaaw maanaam du neex moo tax ma ne wa kasratu sarawaati waaye tamit ñu ngi ñëw tamit pour am fi barke boo xam ne alal yu bëri dinañu fi toppee rusdan wa sitran waaye tamit ñaanal ñu njubug yàlla ñu nekk ci njub wa sitran yàlla may ñu sutura waaye tamit mu mel ne ba may wax damaa mel ne ba ñuy wax dañoo wax ne dikk nañ ànd ak soxna yi am ku taxaw fële ne man de amaguma soxna ma ne ko bàyyil maa ngi ñëw si yow sëñ bi soo ñuy ñaanal ñaanal ñu naatin jigéen ñu gëm yàlla saalihaatin ay soxna yu yiw taayaati soxna yu ñuy topp lanaa ñeel ñu soxna yoo xam ne anil afaati lépp luy gàkk-gàkk jigéen du leen topp loola moom képp ku fi amagul soxna sooy dikk déwén yàlla nga ko am ci barke sëñ bi ak ñi bëgg ñaareel te bokkuma ci yàlla nañu ko am laa <laughs> tan sa baaba raisana wal xil la mux mux wala max ndax olof day olof day wax maxtaar wala ñu ne muxtaar wal xil la mux taarab na amil xarma fir ruxumaati ma ne sooy ñaan nag duñ fi nekk ñun rek yore sàkku ñaan waaye nag am na ñoo xam ne ñoo nekkoon ci daayira bi sos ko doon ko jiite ba yàlla def ñu rëcc jiituñu ñoo ngi nag bu leen fàtte si ñaan xam na ne fàttewoo ko waaye ñun tamit dañoo bëgg a wax tamit ne ñun tamit fàttewul leen kon laatan sa bul fàtte baaba mu waxee baaba rek xam na ne benn baabaa fi nekkoon muy alaaji baaba taal moo doon sunu njiit moo tax ma ne sanaa ki nga xam ne moo doon sunu njiit ci daayira bi waaye tamit wal xilla bul fàtte xaritam ba muxtaar ndax ñoom ñaar ñoo bokkoon sos daayira bi moxtaar mooma nag saa mbokk la ndax suñu bàyyee bokk ndey ak baay moo tax ma ne ko ibna ammi kay sama doomu baay tëx mataar ma nga xam ne alxarma sang la ndax jikko yam yoroon ñii daal bu leen fàtte di leen ñaanal fi roxmaati ci yërmaande yàlla kon suñ la waxee suñuy soxla ñu ñi fi nekk di dund wax la soxla ñi nga xam ne ñoo àndoon ba jóge fi ñu dem barzak waaye timit yow dana la ñaanal ndax kat ñaan moom làmmiñ wu ne yàlla mën naa nangu làmmiñ wu ne donte xeeb nañ suñu bopp waaye yàlla moom xaj na ci làmmiñu mbooloo mi ma sukkandiku ñoom ñu nangul ñu suñu ñaan moo tax ma ne na doo li rabbin xaaliqin asyaana ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne sunuy mbooleem mbir yi moo ko mooy ki ko defar mooy ko créé mooy ki ko bindi maa ñoo ngi ñaan ci yàlla moomu di buur ña ngi ñaanal nag li wasilati ñel suñu wasila bi muy si yàlla ñang wasila bi nga xam ne ndax euh, euh, sëriñ la bu mat sëriñ sëriñ bu mat sëriñ nag mooy fekk ab taalibe bu am ay gàkk-gàkk ci wàllu jikkoom gàkk-gàkk ci wàllu doxalinam mu faxe ba mu dañ ci moom moo tax mu ne mun ji zawil ahaati moom miy musal boroom gàkk-gàkk yi suñ ñëwee ci moom waa looy ñaanal sëñ booba omran tawilan yal na la yàlla may fan a gudd sëñ Aliou Niang sixaatal abdaani yal na nga yàlla may wér-gi-yaram ndax lu fan wi te wér yaram àndu ca mën naa sonal borom kon yàlla yàlla may la fan wu gudd ak wér gi yaram bum ca yam maa risqin xalaalin yàlla na la yàlla may wërsëg wu dagan wu lew la lool yaag sa njaboot waasia thamaraati boo xam ne ngay aji yaatu ci meññat nga xam ne alal ji fu ne lay jugee barke bi fu ne lay jugee lii moo doon ziyaara bi may nag summa salaatu ala alhabibi wa alihi ñi ngi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa jaa taalibi daawaat yi fii ak gàmm mi ngi xew ab délégation di ñëw ñu ne du ngeen wursi ñu ne dañuy sàkku si ñaan fii ak loola jeexul yàlla bu salaatu ak salaamu dañ jiwaat yonent bi sallallahu alayhi bi xam naa fasaa gi des na waaye yéene bi moo ko yéene bi moo ko ëpp loola nag ci làmmiñ lay génnee waaye ci mboolem waa daayira bépp ñoo ànd di ko wax di la ko ziyaara di la ko baalu xaq insha allahu taala in uridu ila alislaam astaatu wa ma tawfiq illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu di seen tur ak seen sant di leen siyaare di leen ñaanal te di sàkku ci yéen ñaan di ñaan yàlla lii yàlla bu mu doon suñu mujj ak daje yàlla nañ ko yàgg a fekke lu bëree bëree bari ña jiitu ji yàlla yàlla yërëm leen te jéggal leen xaaral leen ci aljanna ya gën a kawe ci barka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant rek di gërëm rek xam naa lottu naa ci ki kàddu gi lool nag waaye maa ngi leen di jéggalu rek waaw di sant sañ bi sëñ Aliou ñu ngi lay sant ñu lay sant lu wéré wéré wéré wéré dila ñaanal yalla yalla na yalla guddal so fon yalla na yalla wéral ciri musal la ci saytane kam dok ci daraje nabil mustafa ñu sant mbooloo mi ñepp nak di sant jigéen ñi di sant nak ñi nga xamne ñoy ay goor nek sun kanam ñu ngi leen sant leen ñaanal ndax jigéen ñi kan ñom wax deug yalla fatu fa takku non lool masala ah, man njiit li ban ma jox boy bok mana. musay bo nyar ma ne daanaka na ñaar fukki nyutegi, wala jégué nako musuma leena tek ñu teggi te musul ma janni musul ma risati suma na leen def leen ñu def suma na leen bayyi leen ñu bayyi loolu ma ngi leen ci sante leen ci ñaanal yalla ah ñu ngi leen sante bu baax nak di leen gëram ma ngi jéggulu ci kàddu yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi fi tew iya, yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di delluwaat di nuyu eh, sang bi di la ziarat bu baax a baax a baax a baax xam naa li wolof yi ne sér bu mat kenn du ko njàmbaas njortu naa ne li mu wax rawatina ci xasidam bi daal li nekkoon ci suñu xol yëpp génn na ko li ñu wax ci suñu xel wax na kon la gënoon a rafet rek moom mooy ñu def suñu ziyaare tàllal la suñuy loxo rek nga ñaanal ñu waaye euh, xam naa daal yàqu ci dara ñu sànni ci ñaari kàddu ndax yàlla dogal na nun de euh, xam nga nit ku nekk boo matee doon nit am na ñu ko taxawee ñu naan mbaar mu ne bu taxawee am na am na jën yu ko taxawee euh, xale bu ci nekk nag bu yàlla defee ngay màgg ndànk-ndànk dem ba yëg sa bopp lenn bu la wóoree ne am na ñu la féete woon démb am na ñoo xam ne am la fu ñu la féete woon démb te seen jëf ci yow moom moo tax nga sotti tey li nga doon bu dul woon loolu euh, kenn du kenn du mat la nga doon donte matuñ sax nag waaye euh, sant yàlla bu baax a baax parfois léegoo léeg ma gis benn nit xaw a xale bu ñu waxtaanee man leen rek laa koy delloo mooy li yàlla wax ne kazalika kuntum min xablu kazalika kuntum min xablu kenn ku nekk ay bêtises yi nga xam ne enfant da koy def yow ci boppam jaar nga ci suñ la nettali woon say yëf doo xaj te bi nga koy def am na mag ñu fa tee woon waaye kenn ku ci nekk daf laa comprendre yërëm la tette la dimbali la ba ngeen bañ naan kilifa gaa nga nële loolu nag ñun yàlla def nañu defal nañu bok ki participer ci suñu dundu bañ man ko tabax ba man ko yiwel góor gi ci la bok wax deug yalla référence la ci ñun référence la ci ñun bu mat sax jël nañ ci mom lu bare bare bare bare lu dul xam-xam kese ndax man mom la dama daan wax même wax nako ba tay ne nit la ko xam man sa yoo ne ko jak wala nga tok ak mom lu mu gatt gatt gatt gatt yenent bi moom du ci génn lu mu gàtt gàtt boo toog ak moom yenent bi du génn ci moom moo tax nit la koo xam ne boo ne ko jàkk rek sa xel muy njëkk a dem moo ci yàlla lay dem baa nga dem ci yenent bi parce que loolu lañ ko ne ñun man de wax dëgg yàlla dama daan liggéey ba ay ñaar fukki fan wala fukki fan ak juróom du ma ko du ma am maanaam du ma ko gis mais sama xol moo koy ak sama ru moo koy taam moo koy moo koy sopp moo koy namm may jékki-jékki rek na fi deret ñëw seet si ko te su ma ko seetsee ci la ma koy cuq génnul wàllu jëm ci wàllu diine ak luy defar sama jikko bu baax a baax a baax donc moom loola mu taxawee ñu rek yàlla na ko ci yàlla taxawa yàlla na ko ci yàlla fay lu gën a njort um, kowek njortam defal ko ko ci njabootam nag ñun ñi ñëpp nag wax dëgg yàlla lenn rek moo ñu fi boole lenn rek moo ñu fi indi ñoo ko bokkuñu ñun ñëpp sunu xol yeeg sunu xel yeeg sunu jëmm yii lenn dong dong dong moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi mooy sopp ko moom ci jëmmam jëmmam ci suñu maam la ci deret sopp nañ ko ndax muqaddamu Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Serif la te mooy suñu sëriñ ñun ñëpp sopp nañ ko ndax euh, sët euh, doom la ci wala boog euh, njaboot la ci maam Saane Ñang maam Saane Njaay bi nga xam ne mooy suñu maam ñun wax dëgg yàlla di so njaboot it si góor Saane Ñang te wax dëgg yàlla ñooñu ku leen xam fii ci Jolof xam ne démb dañuy wax ne li ñuy wax naan li yàlla di wax boog ci alquran nan falawlaa nafara min kulli firqatin li yattafaqahu fi diini wala yundiru qawmahum ida rajau ilayhim maanaa démb wala boog jamono bu ne société bu ne di nga gis ñoo fa xam ne ñooy xar seen tànk tubay ni diine du fi ñaawe moom mii maamam ak baayam ak moom mii ci boppam sax bokk nañ ci ñi nga xam ne bañ ca tollee taxaw nañ xar seen tànk tubay ni diine du fi ñaawee maam góor saara nag ku ne xam na ne jolof bari na ko fi bax yalla ci baxuk yalla ci baxuk yalla ci baxuk yalla mo la taxaw ba nga bax ba sey seud di bax ba sey dom di bax kon nak yalla nañu yalla fayal len sen taxaway yoyu wax deug yalla niirut de niirut ñi ngi ñaan yalla tamit mbollem li nga xamne ne euh, barke la ci yalla na yalla def ci seeni dom def ko ci seeni seut mu kondine ni la rek Euh, maa ngi juddal nag maa ngi guddal waaye xam nga jamono jam am tuddati sax jotaay bee ko laaj dafa am jamono yoo xam ne rawatina jamono bii ñu toll nii dafa am euh, euh, dafa am dafa am phénomène bu génn phénomène bu génn phénomène bu génn ci gone yi te phénomène boobu mooy ñàkkee kersa kilifa diine ñàkkee kersa kilifa li ñuy tuddee sëriñ te ñàkk ñàkk ñàkk comprendre toujours laa ko jàppee man parce li ñu wax rek lépp loo gis rek ci àdduna am na original am na foo lépp loo gis ci àdduna am na original am na faux jàngalekatu alxuraan parfois nga gis koo xam ne day ut këram ut ñaar fukki taalibeem wala téeméeri taalibeem dugal fa xam nga lu ko yitteel kenn ku ci nekk boo demee nga indil ko téeméeri dërëm am na mais dañuy jàng alxuraan donte day def loolu waaye am na koo xam ne loolu itteelu ko xam nga lu ko yitteel jàngal leen alxuraan yar leen. ju ëllëg ñuy ay mag yu am ñam te am barke léegi nag kii ak kii même bu fekkente ne ñoo bokk même lu ñuy liggéey mais seen objectif du benn seen taxawaay du benn parfois da ngay gis kuy sëriñ sëriñ lu ak kuy sëriñ du benn sëriñ sëriñtu ak sëriñ du benn wax dëgg yàlla du benn te sëriñ beneen affaire la boo xam ne dafa complexe pour nga pour nga pour nga expliquer ko clairement sax yombut. donte ñun nag dañ koy fayantu rek naan sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ wolof moom mel noonu wolof moom kuy buxaaba sax mu ne sëriñ la ñun nag nañu gën a fonk ñi ñu am te yàlla jox ñu leen ko kenn ku nekk kala yàlla jox te mu wër na la kii njariñ la ci yow na ko fonk te yàlla rek tax nañ fonkante ñun ñëpp te yàlla rek tax di la ñaan yàlla di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal la fi ay at yu baree baree baree baree bari yàlla na nga dund ba dund sàppi la yàlla na nga dund ba dund sàppi la yàlla nga dund bu dund sàppi la nga boole ko wér gi yaram bi jaay rasul lii nag xale yi ñoo waxoon rek naa ko nañ la ko jox nga barkeeloo ko ci seen doole tuuti na xeeb nanu ko waaye ñi ngi ñaan yàlla daal jamono bu nekk walla at mu ne yàlla di def ñu mën fukkam te njortu naa ne ku ci mën fukkam da ko ci def ndax yéen rekk am solo am nañu yéene bi jërë ngeen jëf sama mbokk mi maa ngi koy sant bu baax waaye man ba xamoon ne yow da ngay ñëw fii daara man maa lay dalal <laughs> Maktoum Prod kontaan nañ bu baax a baax <laughs> jaajëf. Madhu جاز المبارج جرائرنا تما بجاء محمد إذا سيار ما بو بجاء تيمم بي ونتبارك باسمه ينن ولا تغدو في شيء تاريخ رسمي فقد قسم المولى لو خير قسمي ترقى إلى سب اتباق بجسمي وقد أسرف أملاكها وتجلت يرى المصطفى بجاء محمد إساء سؤال المحبوب بجاز المبارج جرائرنا تما إما محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لبي سرح لي صدري ويسر لي عمري واهلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين أليو نيغلي نيو كي تورو سونو كليفا سونو ويجور مولانا باي الحاج موسى كمرة أيده الله ونسره وعفسه الله وراحه موني في يبل ñu ñëw fi ci turam ak ci turu famille bi yépp euh ñi ngi and ci délégation bi ñu andi ak euh, njabot gi yépp ñu mën ci lim Mouhamadou Lamine Kamara mën ci lim itam Ibrahim Kamara ak mboolem ñin ko bokkal ñëpp euh sa nijaay nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ndokkeel ci gàmm gi ne di yàlla subhaanahu wa taala yàlla bu mu nekk suñ mujj gàmm ne itam gàmm guñ mas a dàq yàlla na ci gi dàq gàmm guñ mas a gàmm rek yàlla ci gi dàq euh, nee na bu sañoon tey moom moo fiy ñëw ànd ak njaboot gi yëpp teew fi waaye ku nekk xam na ne bërki démb la fi jóge ci siyaaru kamara bi euh, te itam yaram bi xawa a sutante loolu moo sabab dellu si wut waaye ne lépp loo xam ne lu ñuy def ci kër gi la rek nee na moom lañ ko defal lu fi nit def rek ne moom lañ ko fi defal kon nee na mi ngi lay ndokkeel bu baax di la ziyaara itam di la ñaanal yàlla gën a wéral yaram bi gën a guddal sa fan ne xam na sa taxawaay ci diine ji xam na sa sa taxawaay ci bokk gi xam na sa taxawaay ci njaboot gi te loolu itam ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dogal ñuy sarak ci ñaari wàll mën nañ ko sedde ndax bu ñu demee ci sunu maam mii mën a sànq ak can sànq mi mën a moo jur daado can sànq jur ab sa sànq ñu bokk ndey ñu delluwaat ci awa dikke kamara mu am euh, binta sànq ñu indi ko mbayeen mu am dongo binta mu am faati mbay ñu jox ko sunu maam góor saane mu am alxaaji usmaan sa way jur kon dañuy bokkaat foofu Euh, yàlla dogal ngay sama sama mag di sama lépp euh, di suma kilifa aussi toog gii ñu toog ci kaw ndigal moo ko waral waaye suñu sang rek lañ fekk suuf ñu toog bu dul woon ak sa jëmm ju tedd ji sax suñu sang yi ñu fekk ci suuf war na tax ñu toog suuf loolu ñu ngi ciy jéggalu mbokk yi ñu fi fekk bu baax du nuyu itam mboolem imaam yi ñu fi fekk ak asatise yëpp ndax boroomi xam-xam rek a fi nekk suñu limee dinañ guddal waaye ñu mën ci ràññee oustaz Cheikh Ndiaye. Eh, gis fi tamit eh, sëñ Bukaar mi nga xam ne moo doon tabaarakallahu def ti bu am solo boobu di nuyu Cheikh Ahmada Tidiane suñu sang bee ak Ibrahima ak ñin ko bokkal ñëpp waaye ñu fekk fi itam suñu mag di suñu lépp muy soxna Ndeye jiite jigéen ñi ñu teg nuyoo jigéen ñi ci loxoom mu jàllale ñu ko ci ñëpp eh, su ko defee sëñ Alioune ñun itam ci suñu wàllu bopp njabootu bay Alxaaji Baaba ñëw ñoom itam ñu ngi lay ci turu Mafal kamara di leen ndokkeel itam ci gàmmu gi eh, di wax na fii njaboot gii fi daje jëf ju rëy jii ñu fi def ak wax ju rafet jii ñu fi def ñun lañ ko defal kon ñu ngi leen di sant ci loolu bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla subhaanahu wa taala daayira bi yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla yàlla màggal ko ba kenn ku nekk buy ñëwati ci yéen kenn ku nekk ci ci yéen mën a làmb million boo xam ne bu ñëwee da koy jox sëriñ bi ak ay waruwaay ak ay dëkkuwaay. lepp lo xamne lu yalla di joxe ci ay xewal la yalla bu len ci ken eppele ci barke yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sallam koy ñaan ci barke ku ñu yebal fi muy suñu kilifa way ci barke serigne Alioune mi euh, di wax ne serigne bi suñu diggante yow xam nga ko bu baax bu ñu toogee ba heure bi ñu fiy doga ñew xam nga ne am ngànt ne bu dul wol lool ci suba nga ñuy gis wala dembu da nañ fi ñew sax khamis lool moy suñu tay euh kaddu yi nak muñ ta guddu ndax wax deug yalla guddina na war nga ji kon su ko defee euh, man ci sama wàllu bopp maa lay gërëm bu baax ci taxawaay bu rafet bi nga ma taxaw ci conseillers yi tabaarakallah euh, loolu moo doon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ci yëkkati ay kàddu tuuti rek di seede ci Serigne Aline Niang wax dëgg yàlla biñ ko xamee ak léegi day mu ngi bëgg a toll ci fanweeri at mbaa lu ko ëpp waaye diine kese lañ xam ci moom lépp loo séq ak moom du la wax lenn lu dul diine loolu rek lañ xam ci moom ku baax la ku am diine la ku yëg doomu aadama la li ngeen di wax ni li waa ji wax ni léegi ne alalam du ko boolee kenn ñun xam nañ ci dara wallahi ñun xam nañ ci dara day ñëw di ñu fekk ba Tëngéej ñun ñëpp xanaa nag waa Tëngéej yëpp ñëwuñu de waaye bu waa Tëngéej ñëwoon yëpp di ngeen fi gis mbooloo xanaa jamono ji moo xat rek jamono moo xat rek waaye mbooloo mu ëpp bii mën na ko am Tëngéej ay wëllëreem da fa nekk ak nitam waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla kàttanal yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na yàlla wéral ay cëram njabootam yàlla na ci yàlla def barke yéen daayira bi tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm yàlla na leen yàlla dëgëral lu ngeen mën ren yàlla ngeen mën déwén lu ko ëpp yàlla na yàlla suturaal leen ku fi indi jàngoro yàlla na ko yàlla sunu borom saafara ku fi na ko sunu borom saafara ku fi am aajo yàlla sunu borom saafara ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla wér ak wérle asalaamaaleykum wa rahmatullah ayaa munqidha al-gharqa jamii'an fa innani gharqun fa anqidhnii min ahwaali dhi dahri ana soppay seyduna muhammad alaaji abdu nee na yonen waxasil dawaaman matanubati aashimin tanaalu alladi tabgi min alfathi walyusri به فاستغل يا عبد ما دمت قادرا فمة رسول الله من أعظم الذور لا ما نال الرجال مراتبا من الملك العلام جلة الخسر إيه. فمة رسول الله أحمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصغر أنا سوبي سيرين ألو نيان دفلني أيا من بالخيرات يا سيد الورى وخاتم النظم الأنبياء ذوي القدر سغور غنينا لومو واخ أيا من بالخيرات يا سيد الورى وخاتم النظم الأنبياء ذوي القدر إيه. فها نحن عند الباب يا سيد الورى بجايكم نرجو آه، صفاة في الخسر وليس لنا في اليوم أيوة. والغد منقذ سوى جايكم في خالد الدنيخ والقسري كسوب باي سري مصطفى نيانك دفلني أتيناك مغمومين راجينك أصفما لدينا من الأعذان والكرب والدير أيام انقذ الغرقاء جميعا فإنني غريق فأنقذني من أهوال ذي الدهر فأنت لنا ركن قوي ومفذغ إذا اصطدت الأخوال في الثير والجغر أغشنا فليس الخال يخفى عليكم يا سلور الهدي إلى سبل الخير إلى غير فرغم وقف واستر تفضلا بأفضل المموس إلى الخلق للفخر مولاي يا ذا الفل جودك دلني عليك فجد بالعافية واسع الستر مدتنا أكف ثولي راجين منكم جميع الذين بغي من الغذ والنسر سقور جنين وبابك ما وافاو عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر صلاة وتسليم على شافع الورى محمد المختار من ملك الأمر وأزواجه والآل أنجم ديني وأصحابي مرد التغاة ذوي الكفر mawdoy baayam safiyatu ñag mooy yaayam de garmi la dundam de ko rafete garmi la ku kaw bakkaar su suuf mama abdu doo baax ak mawdoy mooy yaayam de garmi la ana soppe da baax inni tayal kantuwal waaw waaw axdaaru tarxaana waaw anal maniyata la tazaalu tazaalu taxtaana borom 40 ans Karmila Karmila Mama Abdou Karmila Abdou Mawday baayam Safiyatu ñang mooy yaayam de Karmila sa góor gi ne lillahi darruka ya waaw waaw Abdul Aziz la ilaha illa واخد ثابئا عابا وانيانا واديانا كرميلا كرميلا ماما عبدو كرميلا عبدو مودي بايا سفية ñang mooy yaayam jagar mi la Ousmane góor ga ne maam Abdou Alim la waaw waaw maam Abdou Abit la waaw Mawdoy baayam Safiyatu ñang mooy yaayam jagar mi la Abdou dundam da ko rafetal gar mi la gar mi la maam Abdou gar mi la

waaw waaw sëriñ Mansour Garmila waaw waaw sëriñ Aliou baayam sona Fatou si la mooy yaayam de Garmila Garmila Garmila Amadou Garmila sëriñ Mansour baax Mawday baayam yatu ñang mooy yaayam de garmila loxo ca kaw garmila Manusur garmila Manusur nyang garmila garmila fat musirin la yaayam sëriñ aliw ñang garmila Bayam de garmila garmila moo defar la kosti Manusur nyang garmila Wow wow fat si la yaayam ñang mooy de garmila sëriñ manusur mi garmila Wow wow dama bayu mustafa baa ngoog waaw waaw faat si yaayam sëriñ Aliou Niang mooy baayam de garmi la waaw waaw faat si yaayam sëriñ Aliou Niang mooy baayam de garmi la tabarakallah ah, way wi nag mooy doon hymne national bi suba tur naa ko benn air xam naa ni si yëkkati ñaari bayit rek eeru fay léegi sëñ Baba jërëjëf addiya ji egsi na waa Tëngéej laa gisagul rek ñoom ah ngeen <laughs> waaw macha wax macha allah na lool. زرناكم يا شيخنا مع جملتي ahbaabi wal awlaadi wal zawjaati zurnaakumoo yaa say xanaa ma jumlati way mag la nag eeru fa ileeka ibn muhammadin la ko waye jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram ndeysaan jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy ana jigéen ñi jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram wallaay jigéen ju baax nangoo muñal teral sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram soxna Daado Mbay ku ko roy roy jigéen ju baax kii ku ko roy roy jigéen ju baax ku si yaa fi jëfun ku i ñaanul di wax samba yaay sëñ Aliou am nga ndam jigéen ju baax nangoo muñal mooy maam sëriñam barke mooy këram bilay jigéen ju baax nangoo mu ñal la sëriñam barke mooy këram salimata mbay ku ko roy roy jigéen ju baax roy jigéen ju baax ku ko roy roy jigéen ju baax ku ko roy roy jigéen ju baax ku ko roy roy jigéen ju baax ku ko roy roy jigéen ju baax ku ko roy roy jigéen ju baax soxna si yaa fi jëm lu tax ku ñaanu lu di wax sama soxna Salima a wallaay jigéen ju baax nango mu ñol sëriñam barke muy curub jigéen ju baax nango mu ñol sëriñam barke muy soxna daada mbay ku ko roy roy jigéen ju baax soxna si moo fi jëmul tax ñaanul di wax samba yaayu allah ji waaw wallaay jigéen ju baax nanga muñal waaw sëriñam barke muy cëram waaw jigéen ju baax nanga muñal sëriñam barke muy loxo ca kaw roy roy jigéen yéen ku leen roy roy jigéen ju baax ku leen roy roy jigéen ju baax ku leen roy roy jigéen ju baax ku leen roy roy jigéen ju baax yéene fii jëfun tax ah. waaw ku iñaanulu di wax samba sapa aliou ñang waa jolof jigéen ju baax nangoo mu ñal sëriñam barke mooy cërëm waaw jigéen ju baax nangoo mu ñal sëriñam barke mooy cërëm kon salaatul faati yee saf la mu saf ka saf rek la saf ko am leneen te yéene sa yëf leeru maam asu nurax wallaay jigéen ju baax nangoo muñul waaw sëriñam barke muy jërëm waaw jigéen ju baax nangoo muñul sëriñam barke muy sëriñ Aliou Ñang am na diine am na ngor am na diine am na ngor am na diine am na ngor na coofeel si Ahmada bu ma weddee ñëwal Jolof Jolof laa jël Aliou wallaay bismilaay maa way ku baax waaw jëmale ko si góor gu baax sëriñ Aliou Ñang Jolof yàlla bërëg loxo yi si kaw na diine am na ngor am na coofeel si Ahmada am na diine am na ngor am na coofeel si Baye Mansour na diine Baye Mansour Ñang am na coofeel si Ahmada am na diine Baye Mustafa am na coofeel si Ahmada ma wedde ñëwal jolof jolof laa jël sëriñ bi waaw wallaay bismillaay maa ngi fent way jëmale ko ci gërgu ba suñu bay al aji ñoñ yal na burgu dal fana moom lu ko waay ñaan mu may la su ko amee de jox la ko lu ko waay ñaan mu may la ko sëriñ Aliou lu amee mu jox la ko lu ko la ko ay loxo la ngi fent way jamale ko ci gër gu baax suñu baay allah ji ñang yal na burgu dalu daawuda lu ko mu may la ko ko amee de jox la ko lu ko waay mu may la ko ko amee de jox la ko lu ko waay mu may la

waa jëmale ko ci góor gu baax sëriñ Aliou Niang Jolof yàlla na buur guddal fana sëriñ Aliou Jolof yàlla na buur gu dal waa Jolof Serigne Aliou Jolof. yàlla na buur dal fanaam Serigne Aliou Niang Jolof. yal na burugu dal ah, wallaay Serigne Aliou Niang Jolof yal na burugu dal fanam Serigne Aliou Niang Jolof Jolof yal na burugu dal ah, Jolof Serigne Aliou Niang Jolof yal na burugu dal fanam ah yaa may portable bi jeex na jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla barkeel ah lii nag